salaamualeykum mbokku jullit yi salaamualeykum taalibe xaadir yi si Sénégal ak si àddina yëpp ñoo ngi nii Nimzaat si place bu tedd bi toog ak xalif général des xaadir Cheikh Aya lu Cheikh Taalib lu Cheikh Sassane xalif général des xaadir ñëpp xam nañu ne bu ñu umee avant ñu um koor ba léegi ñu ngi si affaire Nimzaat bii ndax nee na bëgg na ba taalibe yi ñu wétali ko bëgg na mbokk ñëpp ñu wétali ko sonn na si trop nag. waaye yàlla defal na sutura leeral nag démb vice ministre de l'intérieur mu ni ko man la ma la waxoon fan ba ñuy jëkkee toog mooy sama kàddu ba léegi Sénégal ak Mauritanie benn la benn tali bi du am problème daañu ñëw dugg comme nañ doon duggee génn comme nañ nañ doon génne du am benn problème comme nañ ko daan defee am na nag loo xam ne dafa am si addina bi mooy mbas bi mu ne mbas bi daañu ñëw gouvernement Mauritanie dina ko jël lépp en charge subvention Mauritanie si defal leen test bu woyef test bu rapide xam ne kenn dafa yàgg te kenn dafa taxaw loolu ndam ndam la si taalibe xaaja yëpp nee ñu ngi woo taalibe yëpp nañ ñëw julli si si jàmm dellu si jàmm yàlla nañu yàlla leen sàmm yàlla nañu yàlla kar taxaw kàddu yooyu lañ leen jot taalibe yi ak mbokk yi nga xam ne bëgg nañ ñëw julli si Minzaat ñun nag ñun te man nag si bari taalibe yi maa ngi gërëm Cheikh Aya bu baax a baax sonn na waaye te buy sonn taali bi rek a tax mënoon toog fi julli julleem toog mais ñi fan yëpp ñu ngi jaabante dem ak di dellu si ndax wax ci bare woon na coow li bare woon na waaye léegi yàlla yombal na lépp ci barke Cheikh Saad Bou na ko yàlla sàmm yàlla na ko yàlla bàyyi yàlla na taxaw ma ngi gërëm tam ñun taalibe yi ci suñu ay kaddu wax bokkuñu kaddoom di gërëm ñaari président yi ak seen ay gouvernement ak seen ay ministre taxawuñu taxawu rafet rafet rafet daañu ubbi jama ubbi roosa si pèlerinage bi ku bëgg ñëw nga ñëw si jàmm nga ñëw si jàmm allahumma salli ala sayyidina Muhammad salli